yàlla defuloo ala azimo laylal wilaadati xisbatan isa lam yakun naxwal arami udolo ala azimo إذا لم يكن نحو العرام عدو على أزم ليلى ولادتي عصبتان إذا لم يكن نحو العرام عدول على أزم ليلى الجنة عسبتان يكن نحو mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ngeen déggee lii ngeen xam ni diine moo xewleeti fa tabaarakallaahu ndigal li jógee ci sëriñ Babacar Sy Mansour al Khalifa di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yokk wéram ba li mu yéene ci diina jeeg tarixa geeg mbokk gi yàlla yàlla defal ko lu kawe njortam ci darajey sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu ñëw ci sunu kilifa nag sunu sëriñ muy imaam Makhtar siise muy ndigal li nga xam ni daan na ko jot fa tabaarakallaahu moo yegsiwaat tey mooy lan kazu rajab bi nga xam ni fa tabaarakallaahu ren mooy fanweeri at ak ñaar mu di ko taxawal fii ci Thiès waaye ci quartier bu ñu naan Cité ci buntu jumaam ji incha allahu rabbi ku jóge hôpital régional ñëw ba ci rond bi jël tali karo bi di nga gis baas bi foofu ci kaw yoon bi incha allahu rabbi ku ne xam na ni nag ren le 17 lay doon février bii ñu nekk incha allahu rabbi muy war a tombeek aljuma ku ne xam na ni nag tabaarakallahu aljuma ngoon gi ngoonu Cheikhuna Tidiane la Sharif ngoonu Sayyiduna Muhammad la waaye ngoonu yàlla la ndax dañ ci bàkk yàlla di ci bàkk yonent bi fa tabarakallahu kon nag day am xadaratul juma incha allahu rabbi ku ne xam na ni dana am réception waaye reception bi dañ koo soppi def ko xadaratu jumaa ndax damay oto bu dee daw ba dajeg terrain day taxaw comme que nag aljuma la tombeel te ngoonu yonent bi la ngoonu yàlla la ngoonu seexul tijaani la moo tax ñu soppi lépp delloo ko seen borom def ko xadaratu jumaa di ci yéegal mboolem kuy taaliba cheikh ak foo mën a nekk ñoo ngi lay wax ni su bis bi ñëwee le 17 na nga ñëw bokk ak ñun xadaratul jumaa bi fii ci buntu jumaa ji incha allahu rabbi ndax bëgg nañ mu yaatu lool bëgg nañ mu riir lool bëgg nañ tamit fa tabaarakallaahu képp koo xam ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nga fekkee ngoon googu waaye rawatina nag njabootu na Tiijaan yi kon képp koo xam ni fa tabaarakallaahu foo mën a nekk ñu ngi lay wax ni bis baa 5 heures na la fekk ci tànt bi ñu def xadaratul jumaa bu nu noppee nag incha allahu rabbi ah ki daan teew mooy ñëw teew muy Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz nga xam ni mooy sunu sëriñ bi sunu lépp su ci teewaayam nag incha allahu rabbi waaye bu dee bu guddi ga am na ñuy taxaw di tagg sayyiduna muhammad muhammadul kabir seen fa tabarakallahu ah ki nga xam ni mooy muhammad sekk ayda moom it fa tabarakallahu ci taggkatu yonent yi la moom ak ki nga xam ni mooy fa tabarakallahu Pape Makumba Aan fa séenee ñëw waxtaane kat mooy sayyiduna muhammad ak lan mooy njariñu reñaan gi fa tabarakallahu kon bis baa ngi noonu xaaji mbay fal sopp da baax moom it fa law bokk ci ñi tagg sayyiduna muhammad kon bis baa ngi noonu bàyyiwu ñu kenn bàyyiwu ñu fenn bàyyiwu ñu ñenn waaye xadratu jumaa bi nag mbokk yi na ngeen ko bàyyi xel te xam ni dañoo bëgg fii ci si telemi ci Thiès riir ak laa ilaha illallah waaye riir ak salaatul waaye riir ak fa tabarakallah allah allah kon bis baa ngi noonu di 17 lay doon fii ci jàkkay imam Makhtar Cissé jumaa ji kon su ko defee ñu jox Mouhamad Seck Binta moom it mu wax imaam yi woo leen incha allahu rabbi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu xaq bu baax fa tabaarakallaahu ngeen yëg ni nag macha allahu imaam alxaaji maxtaar Cissé moo aye te nag fa tabaarakallaahu ku aye nag da ngay say bokk moo tax nag mi ngi woo bokkam yi nga xamante ni ji ñoom la bokkal diina lislaam bi muy aima yi macha allah imaam as ahmad baro njegéen fa tabaarakallaahu ñoo ngi koy woo waaye ñu ngi woy it suñu bàyyi Cherif Moussa Haydara ak daayira eh, eh, ahibaayu Cherif Yunus yëpp Cerno Souleymane Dem fa tabaarakallaahu ñu ngi koy woo ci bis bi Cerno Jibril Wan imaam Mansour Mbay fa tabaarakallaahu ak njabootu bay alxaaji Njaase Mbay yëpp imaam alxaaji Xalifa Mbay ak waa jumaay zag ba yëpp fa tabaarakallaahu imaam Xalifa Mbay fa tabaarakallaahu wax nañ ko imaam alxaaji Xalifa Gay imaam Aliyun Garaasi Sàll ñu ngi koy woo imam Abdallahi Diagne Parcelles imaam Maodo Bal imam Mansour Ndion waaye fàttewuñu imaam Ousseynou Dieng ak imaam Assane Dieng imam Alxaaji Doudou ñu ngi koy woo imam Mouhamadou ñu ngi koy woo imaam Adama Nia ñu ngi koy woo Silma imaam Jibril Dieye Grand Thiès imam Pape Niang Grand Thiès imam maam Gor Kane Cité Lamine Cerno Ibrahima Dia ak njabootu suñu baay Alxaaji Cerno Abu Dia rahimahullah wa radiya ñu ngi woo ñëpp rek fa tabaarakallaahu ci bis bi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañ ci yàlla yooyu boog jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Mouhamad kon su ko defee ñu jox Xaaji Abdoulahi Ndaw président daayira Sopp baax mu woo nag dawaayir yi nga xam ni ñoo nekk Thiès waaye ñu nekk ci àdduna bi yëpp ak Sénégal yëpp. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sunu kàddu gi nag bu ñu ko déggee ñu xam na daayira yi ci yëpp la ñuy woo. daaira soppe da baax bi nga xam na moom la mairie jiite fii ci Cité Lamy booleeg daaira soppe da baax bi nekk som te soxna ko ba jiite ko asxaabul kafi daaira Idrissa Gueye musinina musinaati daaira muxtafiina daaira mutamasikina taaxi kaw ak mbuur 1 ñu ngi leen di woo daayiru nisaawul ansaar Fatma Camara ñu ngi koy woo Fatma Mbow ñu ngi koy woo daairatu xayrul eh, bariyati ñu ngi leen di woo eh, ashaabul fi bi nekk Mbour 3 ñu ngi leen di woo xayrul bariyati ñu ngi koy woo fédération Maodo Sy eh, njiit ga di Abdoulaye Ndiaye ñu ngi koy woo am naa u xadratu tijaaniyati bu Hadi Mbay ñu ngi leen di woo daayira burtu madixu ñu ngi leen di woo ci turu maas daayiratu na bi nga xam ne Mansour faal moom la jiite ñu ngi leen di woo du Cheikh Diagne bi nekk Grand Thiès ñu ngi leen di woo soxna Fat Camara euh, ñu ngi koy woo moo daayira Fat Camara bu jaxaw bu ngeen loolu leen noonu nag xam ne nag am na ñoo xam ne nii ñoo ci gën a bokkit muy daayira Cheikhul Khadim yi euh, daayira bi nga xam ne nii moo nekk ci koñ bi sëñ Aline mbay jiitu ko ñu ngi leen di woo muy daayira Maam jaaratam tam ñu ngi leen di woo sunu jigéen ñi nekk ci koñ bi fàttewuñu kenn daayira murid yëpp daayira cant gi nekk ci koñ bi tam ñu ngi leen di woo kon su ko defee nag mbir maa ngi noonu ñoo ko bokk ak yéen ñaan yàlla may ñu fekk jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullah fa tabaarakallaahu ñu fas yéene jël kàddu gi nag jox ko Cheikh Seydil Mouhamadul Mansour bal xaw mi mu wax ñu lan mooy njariñu reñaan gi ndax ku ne xam na ni bis boobu daam lu ci xew loolu nag war nañ koo xam incha allahu rabbi da koy rek waaye su bis baa nag dinañ ko gën a yaatal incha allahu a aouzu billahi min alcheytaani arrajim alhamdulillahi bi nicmatihi wa bi jalalihi tatimu salihat wa salaatu wa salaamu ala sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an sayxina tijaani lati saa tariqatuhu bayna albariyati burhanul barahin mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki àdduna bi su ngeen gisee jataay bi gis li fi xew lépp di ngeen xam ne am na lu xew li xew nag mooy bis bi nga xamante ni moom la sunu waajur wi daan taxawal muy sunu baay Imam Makhtar Cissé muy weeru rajab sëru euh, weeru rajab ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar muy këstu rajab rajab nag li nu miin ñun mooy këstu rajab ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar. waaye li wér ba wér mooy benn fanu rajab ba weer wi jeex lépp ay ngëneen la am nay woor am nay jullit ci yonent bi am nay naafila am na am na am nay salaatu ala nabi yooyu a ngi ci imaam nag bi mu nu wooyee dañ ni bi nu commencé ci bis bi rek bu bis bi teeroo rek nanu commencé ngëneel yi ci biir bokk na ci beew ci wooree benn fan am ubbil nan la benn kër ci aljanna nga wooraat beneen fan tëjal nan la benn kër ci safara nga wooraat beneen fan ñu laat la beneen kër ci aljana nga wooraat noonu nga koy def ba juróom-ñaari bunt yi nga xam te ne moo nekk safara ak juróom-ñetti bunt yi nekk aljana yëpp ñu ñu fermeel la yi ubbi la yi loolu mooy rajab weer wi nag weeru yàlla la ñetti weer yi tegaloo muy rajab soobaan ak ramadaan weer wi weeru yàlla la soobaan soobaan weeru yonent bi la ramadaan weeru xeet wi la imaam ne nag kon ñun nanu nanu màggal weeru yàlla wi li ci nekk ci ay yiw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen yonent yi yëpp bi leen yàlla bi nu bëggee ci yàlla da doo ñaan audience mais yàlla bi mu nammee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ne yow moom maa lay waajal maa lay jël si maa lay recevoir maa lay teral jox ko li mu ko jox cadeau bu rëy bi mu ko jox muy julli te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al salaatu imaadu diin man aqaama faqad aqaama diin waaye wa man taraka faqad adaba diin loolu daal mooy bis isra wal miraaj mi ngi noonu ci la yonent bi riñaande dem ci yàlla mu jox ko sëric bi gën ci sëric yi bu ko defee tabaarakallaa comme bis bi dafa xat li nu junj noonu képp koo xamante ni bëgg ngaa xam la xew ci guddi gi li xew ci rajab xew ci guddi gi noonu na nga ñëw soo ñëwee incha allahu rabi isatit daan ko toj tas ko ba nga xam ci li ci bëgg a xam wala nga xam ci lu ëpp li sa yaakaar bu ko defee yi foofu la ñuy yemale kàddu yi rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf su ko defee nag ñu bëgg a tegtal toftal ki nga xam ni mooy xaaji Ibrahima tabaarakallaahu nga xam ni moom ci daara ji la bokk su ko defee nag mu wootee moom it ñi mu war a woo ñi nga xam ni ñooy wàllu daara ji. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu leen di nuyu di leen ziara di leen baalu ak di leen baal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yéen yàlla boole jéggal kon su ko defee suñu kàddu nag suñu woote dañ koy joyal ci daara ji di woo génération yi nga xam ne ñu mës jaar ci daara ji yëpp yàlla dogal ñu mës a jaar ci daara ji doon fi sàkku xam kon ñu ngi leen di fàttali bés bi iti jiital nag ñi nga xam ne ñoo nekk Mbour Dame la ak suñu mbokk yi nga xam ñoom nekk Ndakaaru Cheikh Tidiane Diop ak ñi nga xam ñoo nekk Ndar ak Louga ak fooleem fépp fu mbokk nekk rek te yàlla dogal mu mës a jaar ci daara ji ñu ngi koy fàttali suñu bës bi te xam ne nag am na loo xam imaam Cissé daf ñu ko lebaloon ñun ndongo yi nga xam yàlla dogal na ñu génn ci daara ji muy jàngal nañu yar nañu ba tey jii fépp fu ñu nekk ci àdduna ñu nawloo ñu bàyyi ñu xel kon nag loolu mu defoon ci ñur muy yar googu bësam bii la am pour ñun ñu mën a ñëw delloo ko kon incha allah ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoo féetee lu mel ni Europe ñu nekk France Italie Espagne fépp fu jullit nekk daal te yàlla dogal mu jaaroon ci daara ji ñu ngi koy fàttali incha allah mu ñëw ñu ànd ak moom bés bi ànd ak moom euh, jàppale imam ci bësam bi nga xam moom la muy Kazu Rajab kon su ko defee incha allah ñu ngi woo tamit ñi nga xam ne ñoo nekk fii Thiès mbokk yi nga xam yàlla dogaloon ñu nekk ci daara ji nekk fi Thiès ñoom itam ñu leen fàttali bés bi di leen ci woo ñun ñëpp incha allah kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim su ko defee nag ñu jox sunu kilifa sunu magu daara fa tabaarakallahu alxaaji Pape Ibrahima Ba mu woo autorités yi nga xam ni ñoo nekk ci Thiès ndax nguur mënut a dem te antak ak daara waaye daara it mënut a dem te ànd nguur dañoo yàgg kon su ko defee ñu bàyyeek alxaaji Pape Ibrahima ba kàddu gi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ñoo leen di baal bu baax te di leen baal ah suñu kilifa gi imam Makhtar Cissé eh, ku nekk xam na ne kilifa mooy woo Morom ja te suñu kilifa gi dafa daf ne nañ ko waxal président de la république buñ sañoon mooy jiitu ci bés bi moo fi njëkk moo fi mujj ñoo ngi koy woo ak soxna Mayram Mayram Faye ñoo ngi leen di woo ci bés bi bëgg nañ ñu ñëw ci bëgg nañu idri sa Seck mu ñëw ci bés bi bëgg nañu Yankhoba Diattara mu ñëw ci bés bi suñu suñu gouverneur bi nga xam ne toujours mooy de moom la ñu dara jaale bés bi nga xam ne ñoo ngi koy woo te di ko fàttaliku fu ñu toll. ñoo ngi woo monsieur le maire ndax dëkk kët ku fa nekk war nga fexe ba looy def maire ba na ca ànd kon monsieur le maire ñoo ngi lay woo ci bés bi bëgg nañ nga ñëw ci ak képp ko xam ne nekk na maire nekk fii ci biir Thiès ñoo ngi lay woo ci suñu bés bi. ñoo ngi bëgg nag Maodo maalik mbay mi nga xam ne mooy doomu koñ bi. nga xam ne moom mooy imaam maxtaar imaam maxtaaray moom muy doomam di léppam kooku moom moo moom bés bi na xam ne moom moo ko moom képp ku bëgg Maodo Malick Mbaye ñoo ngi lay woo ci bés bi na ñëpp ñëw na ñëpp ñëw Maodo Malick Mbaye ñoo ngi lay ñaan nga wooxal ñu président neel président na ñëw ci bés bi ndax mbir kat ku koy bu ko kilifa dee def lu toll ci fanweeri at kum tombeek sa bés bëgg nañ nga ñëw ca kon nag ñoo ngi ñoo ngi woo président de la république ñoo ngi woo ñëpp ñi nga xam ne ñoo taawu réew mi e bàyyiwuñu kenn kuñ ci déggul ku ci déggul sa turit na nga xam ne suñu xel moo mel noonu rek waaye imaam daal moom woo na ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul nguur bàyyiwul opposition ñëpp la woo imaam imaamu ñëpp la kon su ko defee loolu lañ bëggoon a leeral rek ñu xam ne daal nguur geek opposition beeg ñëpp woo nañ leen na ñëpp ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf fa tabaarakallaahu dégg ngeen Hadj Ibrahima woo na ñi nga xam ni ñooy autorités yi tabaarakallaahu waaye turandoom it woo na ñi nga xam ni ñoo jege ci daara ji moo xam ñi nekk ci Thiès moo xam ñi nekk Mbour moo xam ñi nekk Dakar moo xam ñi nekk bitim réew bàyyiwuñu kenn waaye nag ki nga xam ne mooy Nasir Dieng ku ne xam na ni fii la jóge ci daara ji moom ñu ngi koy bàyyi loo xel bis bi ndax amul bis bu ëpp bis bi ndax bisu sëriñam la kon ñu ngi koy bàyyi loo xel bis bi incha allahu rabbi xaajtaal lañ bëgg a jox nag mu woo ci wàllu daara yi nga xam ni ñooy ñi nga xam ni ñooy jànkatu alquran yi incha allah allahu rabbi أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير mbokk yi boo leen déggee loolu te moo di alquranul karim di waajal bis bi nga xamante ni mooy bisu Serigne Makhtar Cissé di woote seriñu daara yi yëpp ci Thiès si jiital sa Ahmad Dam Loum waaye di woo mboolem sëriñu daara yi nekk ci cees yëpp rek waaye di woo imma yi nekk ci Thiès ndax ñoo ëmb seriñu daara yi fépp waaye nekk rek te mooy taalibi ak sëriñ ñu ngi lay woo ci bisu alquran bi te mooy bisu al isra wal mi'raj di wax ni kaamil bi incha allah rabbi danañ ko tàmbale ci 10 heures ñi woo ñëpp rek teewa ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi defee nag. ki ñu bëgg a jox kàddu gi ñoom la sëñ Mansour waxoon ni ñoom ñooy kiricc ndax soo paanee ci àll bi fa tabaarakallaahu sa puno crevé sa xel du dem lu dul kiricc te ca gannaaw nga koy sànni waaye moo lay moo lay dimbali. ki nga xam ni sëñ Mansour moo daan wax ni ñoo lay toggal cere baase ñoo lay paaseel ñoo lay paasal ñi nga xam ni fa tabarakallahu ñoo dugg njëkk a dugg ci lislaam na xadijatun sakkanat bil qalbi qailatan lam yuxzika allahu fi daarin la takimi waaye xadijatun wa aliyun wa bnu arisatin wa man bi daawatihi usmaanu zo salami kon ñooñu nga xam ni fa tabarakallahu lu ñu bokkul loola du jag wala bu jege yit dina am lu manqué ndax ñooy xorom ci cin jigéen ñi laay waxal kon nag ñu jox soxna Ayda Ndaw mi nga xam ni mooy présidente daari sopp da baax maire yi su ko defee mu wax ci kàddu jigéen ñi inchaa allahu rabbi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku nekk si sa am ak santam man maa ngi wootee ci bésu imaam Cissé bi nga xamante ni képp ku nekk si Talamine ñi ngi la ciy woo imam Cissé ñi ngi ñi ngi nga xamante ni képp ku nekk si Talamine ñi ngi la ciy woo imam Cissé bu wootee képp ku nekk si Talamine rek war ngaa jóg jigéen ñi maa ngi leen di woo ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi génn seen néeg yi jox gan ñi teral gan ñi jàpp ci liggéey bi ngeen defar ko ba mu baax teral ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwu ma kenn maa ngi woo mbay ak ndaw mu teel a ñëw ñu jàpp ci bés bi di woo Coro Jóob mu teel a ñëw ñu jàpp ci bés bi di woo daayira euh, maam jaara yi nekk fii Salamine ñu ñëw jàppale ma ci liggéey bi ñu teral gan ñi toppatoo gan ñi balaa 5 heures a jot ñëpp pare mën a ñëw ci xadaratul jumaa bi bu ñu dee joxee gan yi ñu xewlu ba pare ñu dellu siwaat ci tànt bi teel a ñëw sañse ba rafet te taaral tànt bi ngir imaam Cissé amuñu képp ku dul moom amuñu ko wasalaam. jërëjëf dégg ngeen kàddu yi fi root yëpp fa tabaarakallaahu lépp ànd naag tawféex ànd naag ngëneel. nga xam ni bis bi nga xam ni mooy bisu Seydina Muhammad waaye di bisu umma islamique bi yëpp ndax bis boobu ca la rañaa ni dem jëli julli juróom indi ñul sëri ca bu rëy boobu moo tax mooy Kazu Rajab imaam Maxtaar Cissé mi nga xam ni mooy sunu kilifa fa tabaarakallaahu jële ko ci ndigal fa tabaarakallaahu ndigal loo xam ni mat na sëkk ndax yaakaar naa ni xaratul malikiya koo jële ci moom ndigal am nga ndigal waaye imaam Makhtar Cissé nag ku ne xam na taxawaayam ci Thiès ku ne xam na taxawaayam ci Sénégal ku ne xam na taxawaayam ci bitim réew ñi mu jàngal fa tabaarakallaahu ñañu jàngal ak ñañu jàngal ñooñu soo leen woon ci tànt bi xajuñu fi kon nag taxawaay ku am taxawaay bu mel noonu nga woote bis waaye wooteloo ko sa bopp de ndax wooteelul cër bu jëm ci boppam wooteelul bisu boppam bisu yorante bi la woote muy le 17 incha allahu rabbi février bii ñu nekk di tombeek aljuma waaye nag xadara bi maa ngi ci insister ñor nañu ñor na imaam ñor na képp koo xam ni taalibe cheikh nga ñu bëgg ñu teel a ñëw def xadratul jumaa laa ilaha illa allah jay riir allah jay riir salaatul fatiha bi di liir kon nag ñoo ngi woon ñépp bàyyi ñu kenn bàyyi ñu fenn bàyyi ñu ñenn waaye ku ne xam na ni defoon nañ ko daaw fekke ren waaye nag dañoo bëgg a fekke déwén waaye ñi nga xam ni fekke woon nañ ko daaw te fekke wuñ ko ren ñu leen ciy fàttaliku ndax wa aw awfu bil ahdi innal ahda kaana masulan kon nag kóllëre dafay loo xam ni ëllëg yàlla da koy laaj moo tax imaam ni ñooñu ne leen fàttaliku ci bis bi mënuñoo tudd ñëpp waaye dañ ciy junj ñii ñu yóbbaale ñu ci des képp koo xam ne way dawlu nga dugg ci biir suuf imaam nee na bis ba dinañ jàng kaamil 10 heures ñaanal leen ko waaye ñu jukki ci ñi nga xam ni mooy Baye Njaw Jaxate ak ki nga xam ne mooy imaam Salih Aan ak ki nga xam ni mooy imaam Madické Diouf ak ki nga xam ne mooy Baye Mour Ñang kon ñii dañ leen ci fas yéenee ñaanal incha allahu rabbi ci bisu le 17 février bii ñu jëm kon nag bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn. képp ku naan ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñoo ngi lay woo ci bisbi waaye nag mboolem site internet yi nga xam ne ñoo nekk ci Thiès moo xam sax nekkuñ ci cees ak télévision yi li ngeen war a génne mooy mbaax yi ndax damay wax ni ni mbon toll fa tabaarakallaahu liñ ko médiatiser rek moo tax mu toll noonu waaye mbaaxu këpp fuuf waaye dañuy jël mbaax dëgg ci seen tànk kon nañuy médiatiser mbaax yi ndax ñi nga xam ne bëgg nañoo baax te xamuñu fu ñuy baaxee ñu am fu ñu repéré woo kon nag ñoo ngi woo ñëpp mbooleem site internet yeeg télé yi bàyyiwuñu kenn imaam nee na fa tabarakallahu képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah moo ngi lay woo ci bis bi waaye bis bi nag bisu ñaan la bisu ijaaba la ku ñëw ah da ngaa ñëw ngir nemmeeku de ñëw ngir ziyaar si ziyaare si waaye nag sooy dellu di nga am ziyaada muy ndollent kon nag ñu bàyyeek imaam moo daal di joxe ñaan ñaanal ñu ñaanal jàmm ci réew mi ndax réew mi soxla na ñaan te xam nañ ni su ñaanee fa tabaarakallaahu ndigalu mag ña la ñaanee kon nag imaam nga ñaanal ñu waaye gërëm Pape Sow mi nga xam ni mooy sunu mag fa tabaarakallaahu di magu daara ji nga xam ni liñ doon wax yépp ci kàddoom lañ ko waxee kon nag imaam mi ngi noonu soxal prise bi soxal jàmm ji soxal xéewal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Mouhamadul Kabir tabaarakallaahu Xaaji Mbay Fall tabaarakallaahu Xaaji Mouhamed Ayda ñi nga xam ne ñooy tagg Seydina Mouhamed ci bis ba ci guddi gi ànd koog fa tabaarakallaahu Xaaji ma Makumba Aan mi nga xam ne moo war waxtaane bis bi incha allahu rabbi kon nag. ñooñu ñu ngi leen di xaar ci bis bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah ala kulli aalin ñu ngi santaat yàlla boo baax di julli ci suñu sang bi Seydina Muhammad di ñaan ci mbiir mi ñu tàmbali ci bismillahi yàlla nan ko eggaleeg alhamdulilah te yàlla bu mu nekk. suñu mujj gàmm ñu ko fekkee ren ñëpp yàlla nañu fekkewaat déwén ak déwénaati jéeg ci fekkee gu ànd ak tal ak doli man-man manu baatin ak man-manu zahir tabaarakallaahu ñu ngi ñaan ci jaww ji ci ndox mi ci ñuy dox ci suuf yi ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm ñu bokk jàng faatiha julli canant bi def ina ansalnahu fii laylatul qadr yetti yoon yàlla tib juróom-ñaari yoon benn salaatul fatiha yàlla na yàlla defal nu tawféex defal nu taysiir defal nu nasiir ak najaxa yàlla na yàlla def tawféex ak taysiir ak nasiir ak najaxa yàlla na yàlla may ñi ñépp fekke ak tal yàlla na yàlla may ñépp fekkee ak tal ci barke alxuraan ba seydina muhammad bismillah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 وتسليم على حمر من نوره نيل ما نلنا من أنواره salaatin waaw waaw alaa xamarin min nuurihi naylu maanil naam anwaare min nuurihi naylu maanil naam anwaare min nuurihi naylu maanil naam lanuwaari bal di yàlla defuloo